pakaaw yi pakaaw Ibra Marem pakaaw Njoogu di leen yëgal ne ñooñu nga xam ne ñoo saxe ko ci Sayer Maté ak ma ba Jaxu ñoo jàppa siyaare bo ne dimanche bii la dimanche bii la ñu ko def ci son bi nga hôtel dañoo xëy suba nag di wàccee kaamil ba ñaari waxtu wala ko weesu siyaare bu rëy la boo xam ne bii di ko njëgeyal na borom réew mi His Excellence président Haji docteur Yaya Jammeh Nasiruddin soxna si vice président docteur Haja Aïssatou Ndiaye Seydi di ko yel imam ratib bañ xaaj cana ilimaan yi nga xam ne ñu nekk Banjul ak li ko wër ak seen i nayib rawatina alkaali Bakaw borom dëkk ba ilimaan ba ki nga xam ne mooy député Bakaw ñu ngi ko leen ko yëgal di leen yëgal ne seer mati moom nga xam ne moo tëdd ci Sunwing Hotel zaare bu nu ko defal at mu nekk ñu ngi leen di xamal ne dimanche bii la di koy gal nag docteur Ndiogu Ba nga xam ne mu ngi soxe ko ci seer mati ci képp koo xam ne kii nag bëgg nga fekk ziare boobu ñu ngi leen yëgal ne na ngeen teel a ñëw. Eh, ci Bakaw foofu ci wàllu jigéen ñi jiite na Hadja Jaxu Ba nekk ca Afdaay booleem koo xam ne ki yaa ngi dëkkee Gàmbe kook nga xam ne nag eh, xare bu rëy la xare eh, di xeex ceddo yi ba yàlla def nag mu ñëw ci angale bi fii ci Gambia tëdd fii ci son bi nga hôtel ci at moo ñu xam ne 1897 moom la ñu jàppal ma ne dimanche bi bu kenn manqué ñu ziare seer mati ni ñu ko defee at mu nekk. waaw ah yow itam Kéba takka jabar ñaata at juróomi at a ngi nii munumaa am set munumaa dara lu la toppa parce que seet naa ne day si yoon bii kafaar loo kenn day lekk six cent loo ko def mu ngi ras rek gaawe ñu waa ñu dundu ko am problème su amul problème tam am na loo xam ne naxari na ko moo tax bëgg koo jàppale yow la waat ah yow la waat dee suma naa la ci ma bi xamuloo waay bu ma nee raka waay Amina nga suñ yow Amina lii lan la. dinaa leen wax benn baat ngeen déglu ko bu baax a baax fii ku fi ñëw rek nga xam ne sa set na. kii yàlla moo ko wàccee indi ko si ñun fu mu dimbale ñu laaj ma nag mooy kan nga mun a xam. waa kii kan suñ président président la Alhaji Yaya Jammeh. man I do it well. i am di the um, TV show bu ees tudd Banjul Night Live programme bu ees la bu ñu tuddee Nodi Sauce mu leen ko indil fii si GRTS ngeen fi àndal Rohey Biteye Nodi Sauce suñ ko waxee mooy xamal fi mu jógee. toppal leen nag su ko defee ñu xam nu ñoo liggéeyee si mbir yoxos bi. na mu ngi nii. xanaa yoxos soo koy génnee parce que yaa ngi ni ko génnee nii yaa ngi wotatu fi potopoto bi. waaw man suma boppoon sax maa ngi ñaxa waaye ñu ngi dem fële Safour eh, yi eh, seen fur bi ñu bàyyi liggéey bi naka la mu mel foofu moom tamit. on this TV show. Everybody have a role, so play us. Hello there, and welcome to BJL Weekly. This is the show that brings you reviews of the hottest showbiz highlights of the week. The when and where is in town, who is in town, where have you been, and lots more. Exclusively on BJL Weekly with Fox and saama bu neex buy waaj a ñëw ci seen télévision bu mag bii di GRTS saama boobu nag ñu ngi ko dippee Kumba ak Samba li tax a jóg drama boobu nag mooy jubbanti yeete ak bégle ñu leen di xamal ne ci biir drama boobu am nañ ci ki nga xam ne mooy Samba di borom kër gu bëgg njaboot fonk njabootam bëgg réewam fonk réewam di suqali réewam waaye nag di tësta si rek ngir njabootam ba tax na façon coono bu ne ma ko ci jànkuwante ba tey am nañ ci ki nga xam ne moom la ñu tuddee Kumba Kumba nag di jigéen ju nga xam ne jigéen ju fonk njaboot la borom këram jigéen ju nangoo liggéey ngir jàppale borom këram waaye ngir jàppale njabootam ak li nga xam ne ba tey mooy réewam. nga lii tiiñ bi dong la. yéen bi ñëw maa ko yóbbu Màkka baay force. waaw ah, Sénégal bi yàlla na yàlla def maa ko yóbbu Màkka sama loxo ci kaw. loolu de laaj na doom bu soobee yàlla. Birikaana doo fa yegg. dafa iñaan de dafa iñaan xaaral ma jëkkat ma fóot gi. déedéet

fee génnee fii kenn mën ma ma yong ñëwaat de fii man <laughs> ku nga xam ne bëgg ngaa dugal sa loxo ci drama boobu noonu maanaam ci wàllum sponsor bëgg nga see dugal sa loxo ñu ngi lay ñaan rek na nga jokkoo ak nomba yii ma leen di wax damaa sàcc nag di leen ko déy muy 795 79 57 795 79 57 wala boog